nuyu. maa lay fay. tur bi naka la. Aliou juuf la. d'accord Aliou Diouf ndax da nga am mbokk ci li nga xamante moo di si biir kër gi. waaw am naa fa ay mbokk am naa fa xarit. Mm-hmm. sama benn rakk boo xam ne ñoo bokk benn village. Mm-hmm. moo mujjee génn léegi nii ñu koy wax Aliou Ndiaye. Mm-hmm. te am naa fi keneen koo xam ñoo bokkoon nekk euh, ñu koy wax euh, Mouhamed. ñu gars yi di koy woowee Momadou tamit. ñoom ñaar euh, ñoo mujjoon a def si waaw affaire daal moom metti na trop nag. d'accord naka nga yëgee rek li nga xamante ni moo di information bi. waaw affaire bi moom démb si guddi la wax ndax bi match Sénégal bi jeexee si la profité sangu mu ne xaaral ma dem gont ji comme tardé naa léegi bu may dem ñu ne mu dem dañuy reere ma toog li leen xaar ñoom ñu dem reer yi ñëw mhm. bi ñuy ñëw dugg après ma si laa génn man maa tëj buntu bi sax bi ma génnee léegi si laa départ di dem léegi bi ma départ di dem. Euh, dégg naa kenn ki dafa génn dem jëndi garab yooyu ñëwaat bi mu ñëwaatee léegi ci lañ dugg ci biir fekk man justement àgg naa fi may liggéey déposé samay bagage yëg euh, ci quatrième étage bi diggante boobu avant may wàcc woo nañ ma téléphone euh, ay appel yu bari bi ma ñëwee gis appel woote wu ma sax avant may woote ñu woowaat ma mm-hmm. ci lañ ma jox information bi ci laa bàyyi lépp lu ma jàppoon daw ñëw xam ne lii la yàlla dogaloon. métti mm-hmm. na trop nag. d'accord ndax yow ci kër gi nga dëkkoon. man ak ñoom maa ngi ñaar yooyu mujjee génn nii ñoo bokk benn néeg. Mm-hmm. kenn kii sama rakk la boobu peut être mën naa ne sama rakk la ndax ñoo bokk village maa ngi magam ñoo doon ànd. Mm-hmm. waaw keneen kii maa ngi magam fi lañ xamante ñoo newoon fii di jaay ay daal. yàlla def ma am mu ñëw bokk ak ñun nekk ak ñun. kon donc dama ko jàppee sama rakk mu bokkal ndey baay ñoom ñaar ñëpp waaw loolu la nag affaire moom noonu la. d'accord nga am ci biir ñaari xarit ak sa benn frère mbaa ñoom génn nañ te euh, ci dala dalu leen. non ñooñu moom wax dëgg yàlla ma wax waxu góor rek euh, naan daal yàlla moom na leen rek. ndax dëgg yàlla moom li ma leen gisee ak koor gi ni mu génnee moom du ay nit ñoo xam ne war nañoo mën a dellu si waat ci kaw suuf moom. yaakaar naa ñoom ñetti ñëpp. waaw ñoom ñaar ñoom ñaar waaw keneen kii euh, moom jën seepaa nag wax dëgg yàlla ndax bi muy gé dafa fekk yaram mi xawoon na tàng gars yi déplacé woon ma quoi mm-hmm. mais ñaar ñi daal moom jàpp naa ne moom ñooñu moom pare nañ fii moom dëgg yàlla ñaanal leen yàlla yàlla xaaral leen aljana mhm. waaw fañ jëm daal gënal leen fañ jógee mhm. waaw loolu daal laa leen di ñaanal képp koo xam ne tamit gaañu nga si mhm. maa lay ñaanal yàlla yàlla na yàlla dala si waat sa sago waaw ñi nga xam ne jot nañu ñàkk seen bakkan ñu leen di jaale ñëpp waaw gënal ñu nag waaw ndax bu doon tey ak jàmm moo ñu ko teg xëy na danañ am na neneen nu ko xam ne noo xamante danañ ko mën a doxale mais comme que yàlla la moom amul lenn luñ ci mën a def muñ daal ñaan euh, yokk sant rek. Mhm. waaw te xam ne ndogal yàlla fu ne lay jógee. waaw metti na trop ñu ngi lay jaale bu baax a baax ndax ki nga xamante ne nii moom moo di borom kër gi daf leen joxoon délai ngir ngeen génn ci kër gi wala. waaw man de wax dëgg fa yàlla ku dee ak sa bamel mais man information boobu. jotu moo ko dégg ndax borom kër gi ñun miinante nañ dañuy dem këram. Mhm. waaw ndax bu ñu nekkee si suuf day ñëw fii bu ñëwee dañuy jox ay njëgu affaire yooyu noonu. Mhm. dëgg fa yàlla. mais ci kaw appartement am troisième ba si suuf amul kenn koo xam ne da ngay def dara to woo ma nee ma kaay defal ma wala kaay waxal ma lii wala kaay jëlal ma lii ndax ñëpp samay xarit la ñoon si ko ba si suuf mm-hmm. Mm-hmm. xiifu ma maru mm-hmm. yàlla kon de borom kër gi boo waxoon loolu naa ne danaa ci am information mais man jàpp ma kenn koo xamante mos na maa wax borom kër nee na ma doon laaj mooy ndax si suuf ndax am ñoo xam ne ñoon bëgg a wàccaat si suuf ndax wàcc yëg escalier bi dafa xawoon a métti ñoom dañ ma doon wax ne bu suuf paree nañ ko naa leen lijjanti foofu appartement affaire yooyu daal lañ ma daan wax waaye wax dëgg yàlla kàddu boobu dégguma ko si woon waaw d'accord ndax démb ci guddeeg léegi euh, jot nga xam ñaata nombre ñoom ñoo génne ñoo xam ne ñu ngi euh, seen bakkan waaw ah, ñu ñàkk seen bakkan bi ma yëg see premier contact mm. am na ku ñu génne koo xam ne ñàkk na bakkanam euh, benn góor mm-hmm. dans trente minutes su ñu ma mën a xayma sama benn jigéen ju baax yàlla na ko yàlla yërëm ko xaare ko aljana nabi moom it ñàkk na bakkan sama kanam waaw ak euh, koo xam ne suba ñu sànq lañ ko génnee kooku tamit ñàkk na bakkanam ak ñaar ñuy des ñi daal moom ñooñu moom jàpp ma daal ña nañ ñëw wala duñ ñëw waaye gëmuma ko mm-hmm. waaw ni ma leen gisee moom nooyeetuñ mm-hmm. kon donc jàpp naa ne ñooñu moom yàlla moom na leen waaw di ñaan yàlla yàlla yàlla xaaral leen aljana. d'accord yàlla suuf seen seen kaw rek. Mm. waaw loolu daal laa leen ñaanal. jërëjëf ñu ngi la koy jaale bu baax a baax di la masawu aussi ci li nga xamante ni moom moo daal di dara ñëw rek waaw jërëjëf waaw kontaan naa si euh, intervention bi ma kii mm. parce que tey jii nii lii moom loo xamante ne dañ ko doon ñaan yàlla kenn ñaanu ko yàlla. Mm. ndax euh, fu yàlla ñëwee rek ñu xam ne fa la yàlla ñëwee dañuy ànd ak moom muñ. ndax barki déew ma jaay ñu newoon ci baneex kon tey bu ñu xëyee nekk si naqar tamit dañuy dolli sant yàlla xam ne yàlla moom lu mu def rek xëy na am lu tax xëy na li ci kanam mooy gën lii nii yàlla li ci kanam jëlal ñu lii nii loolu daal la ñu ñaan yàlla moom waaw ñi noos mun a juumul mu a ma nee la temps la mais peut-être mun naa la ne en tout cas si ko amoon na ñaari appartement ak studio mm. si ko euh, benn apartement bi amoon na ñetti nit beneen appartement bi amoon na tamit ñett nit ak benn bébé mhm. waaw studio boobu euh, troisième am woon nit mhm. kenn dëkk woon boobu mhm. deuxième bi amoon na tamit euh, même chose yooyu ñaari studio ñaari appartement benn studio ñaari appartement bi su ma jiw mu quatre jigéen ñoo fa nekkoon ak benn góor ak ñaari xale benn appartement euh, bi kenn moo fa nekkoon studio bi kenn moo fa nekkoon premier bi Euh, su ma juuma ñett ñoo ko nekk waaw ak ñun ñu si suuf ñoo nekkoon ñett waaw loolu daal ñoo fa jotoon a nekk daal. ndax ci li nga fekkee ñi nga xamante jot nañ la génne mbaa seen gaañu gaañu yi métti. alhamdulilah ñi ma fekkee moom gis naa leen ñu dox ak seeni tànk. kenn rek laa si jot a gis ñu ñu boot koo xam naa peut-être dafa am jafe-jafe tànk. Mm. mais ñu si bari moom dëgg fa yàlla. gis naa leen ñu téye leen si loxo ñuy doxal seen bopp mhm. waaw maa ngi leen di ñaanal yàlla yàlla yàlla saafara leen lépp li nga xamante moo leen di métti waaw ok jërëjëf